bi ma ko yëgee biñ ko ñëwee wax sama assistante man góomu ko woon sax dama ko gëmul ni ko est-ce que li ngay wax noonu dëgg la góomu ko après nag bu ma ñu bari woma ma et tout ça ma ah kon kat lii kat dëgg la mu trop trop trop trop trop parce que euh, porte-parole man doy doon sama xarit suñu famille yi famille Massamba Sall ak famille El Hadji Malick ñu bokk lépp au niveau de moom ci boppam muy sama xarit ba nga xam ni xam nga boo amee sa kilifa boo xam dafa lay fréquenté ah chaque jour bu julli jee pare day jaar presque sama kër parce que ñoo dend kër fii au niveau de dakaar ah ba pare dëkk ensemble aussi au niveau de Tivaouane mu may doon digal nag toujours lu baax di ma yee di ma wax histoire xam nga moom dafa ci dafa euh, dafa am une mémoire historique nga xam ni yu bari mu ma ci yee. moo tax vraiment maa ngi jaale umma islamique bi yëpp di jaale vraiment famille El Hadj si Sy yëpp di jaale famille sëñ Babacar Sy ah di xalif bi di sëñ Babacar Sy ah famille sëñ Babacar Sy yëpp ma leen di jaale Tiwaawan daal perte na ku mag ku dal ku teey ku doylu ku bëgg nit koo xam ni toujours de yëkkati nit surtout ku nit bu nekk Tiwaawan man def fu mu fu ñu mës a tase fu ñu mësa fekk damay kontaan ci moom parce que daf may yëkkati foo xam ni jotewuma fa sax ci man vraiment muy nit boo xam ni perte nañ daal ko mag a mag a mag Sénégal perte na tey mag a mag a mag a mag perte nañ ko.